na ngay fatlikuk dee fatlikuk mbugal ak layoo te fatliku bis pénc ak daje séq la na ngay mooy wax joo xam ni jii du ju am njariñ te dëkk ci jëf joo ni baaxam ga na la waxal wax ju lay faj lëf te jëf-jëf ju lay jariñ